mboolem xel kon rek mu doy ngeen xam ne lislaam dootul fay buur yàlla faqad qaala taala muxaddiran haula almujahidina biha inna alladina yuxibuuna an tashia alfaxishatu fi alladina aamanu lahum cadaabun alimun fi dunya wal axira wallahu ya'lam wa la ta'lamun waa mbokk yi eh, li jaxal ñëpp mooy xër gi am ñu ko xër ci fisal mbon ci sa biir li jaaxal ñëpp mbon moom mbon moom yàlla parce que mbon ak mbaax ñoo ànd te boobu bu bon amuloon baax bu nekk mérite li tax baax fexe ba baax li tax ku ko def yelloo jërëjëf mooy li fi mben li fi mbon nekk te bon gën a yomb baax bon moo gën a yomb baax kon bon mës ta fee nekk naka jëkk waaye nag naka jëkk itam bon dañ koy nëpp dañ ko daan nëpp naka jëkk ñi baax bugguñu woon bon fés ñi bon sax bugguñu woon bon fés kon lan moo xew lan moo xew ba tax jamono jëpp jóg ay équipe ñu def ay équipe wut ay moyen pour fexee fésal bon lu tax loolu lu tax ñu bëgg mbon fés ba mu fu mbon amul sax ñu keree yu bëree bëri ñu ñaa koy dégg léegi buñ ko masaan a dégg seen fit dem léegi dañ koy dégg mu jaar mel ni dara xew ay mbir yu ñaaw ay wax yu ñaaw ay jëf yu ñaaw ay nit di ko fësal di ko yëgle di ca woote di ca woote di naw ña ca bokk loolu daal lu doy waar moo tax képp ku mbaax ñor képp ku mbaax neex sa xel dal sa xel dal te bëgguloo ndax lii raam su àggee ci ñag ba ñépp seen awra nekk ci biti ndax luy yiir awra du fi amati lii raam su àggee ci ñag ñépp seen awra nekk ci biti ndax awra du amat lu ko te nag nëbbu awra moo ñu wutale rab yi nëbbu awra moo ñu wutale rab yi kon suñ demee ba li taxoon ñu gën rab yi ñu tànn def ko bu boobaa rab yee ñu gën ndax lu la tax a gën sa nawle soo ko bàyyee doo ak sa nawle sa nawle da gën kon suñu nëbb awra wuutelee rab yi bu ñu fësalee suñu awra yi rab yi ñooñu gën ndax bu rab amoon xel du nangu awra nekk ci kon mbir mii ñu dugg mbir mu garaaw la garaaw boo xam ne ñàkk koo waxtaane erreur erreur la ñàkk cee jóg ñàkk xel la war nañ koo waxtaan war nañ cee jóg ba mu jóge fi lislaam musta nangu ku fisal mbon musta nangu ndax bu mbos bu mbon yàggee fis bu mbon yàggee fis ki bonoon duuta am kersa ci bonoon waaye ñi baaxoon dañuy ñëwee bon lu garaaw la li may wax nii lu xóot a xóot lay wax su mbon yàggee fis su fekkee ku bon man koo fisal bu bon yàggee fis ci bonoon duuta am kersa ci bonoon bi kon du bàyyi bon du bàyyi bon waaye ñi baaxoon sax duutuñu ragaletee bon ndax fu ñu tourné rek gis fa ñu bon daa mel ni léegi la mbon gën a yàgg déedéet man naka jëkk mi fi waaye léegi la mbon gën a siiw moo tax siiwal mbon ku bon a koy def siiwal mbon ku bon a koy def ñu bàyyi xel ñu bàyyi xel bu baax am na ci dëkk bi ñoo xam ne siiwal mbon lañ def métti te ku leen wax ne bokk leen ci ñu baax ñu mel il faut ñu tànn nañ tànn waxuma sax ne kuy siiwal mbon ku bon nga waaye kuy siiwal mbon danga torox bala ngaa dee xëy na nit ñi bañu ñoo bon mais bañ nañoo torox kon ma waxaat ko képp kuy siiwal mbon ku bon nga te ku bon bala ngaa dee da torox da torox fii ci àdduna ba ñëpp teg ci seen bët ndax yàlla moo ko te yàlla mës wax lu mu def lu def mës ta wax lu mu def